yow bi nga xam ne da nga bëgg a dégg anglais wala nga man koo lire wala nga mën koo bind rawatina nag ci jamono ji ñu toll nga xam ne foo dem ci àdduna bi moom la ñuy làkk gaawal nga dem whatsapp nga inscrire wu gaaw dinañ la ko jàngal ci jàng mu yomb moo xamante ne du yàgg di nga ko dégg te mën koo bind gaawal dem nga inscrire ñu ngi leen di nuyu yéen ñi nga xamante ne yéen a ñuy topp ci King Taalif ñu indi laat leen histoire bu yéeme ba xamante ne koo xam ne moo ko moo ñëw nettali ko andi ko fii ñu war koo andil leen ko tey jii histoire bi nag mu ngi doon histoire bu yéeme lool ñu ngi leen di wax balaa loolu yow mi nga xamante ne yaa ngi seetaan te abonné goo woon nga abonné ci King Taalif tey partage vidéo yi te saa yoo seetaanee ba noppi ñu ngi lay ñaan nga sem te joxe sa commentaire ñu ngi la koy ñaan kon nag ñu daal di ñëw indi leen histoire bi. maa ngi tudd Mamadou nekk benn xale bu góor boo xamante ne man maay sama taawu baay. maa ngi dëkk ak ki nga xamante ne mooy sama baay dëkk ak ki nga xamante ne mooy sama yaay waaye tamit man am naa soxna man nekk ci biir kër gi di góorgóorlu di daw lépp loo xamante ne am naa ko ma indi ko ci biir kër gi ndaxte kër gi sama baay mi ngi ci sama yaay mi ngi fi samay rakk ñi ngi ci biir kër gi yoo xamante ne man maa leen di jàppale ak ki nga xamante ne mooy sama soxna ñu nekk ci biir kër gi di dund nekk ci sunu jàmm nekk ci sunu dund gu neex waaye ba nga xamante ne yàlla dimbali ne ma ma dem ba mu yàgg ma ne bay boo ma daal di génn dem liggéey ngir gën a yaatal liggéey bi waaye nag génn naa ci dëkk yi nga xamante ne moo nekk ci fii ci Afrique nga xamante ne dëkk boo xamante ne ci Afrique la nekk ma dem fa nekk foofa di góor góorlu génn Sénégal dem di liggéey foofu di daan sama doole waaye lépp loo xamante ne am naa ko rek andi naa ko ci biir kër gi bokk ko ak waa kër gi muy sama yaay di sama baay ak samay rakk bëgguma ñu xiif bëgguma ñu mar ak ki nga xamante ne mooy sama soxna waaye nag dañoo dem ba mu yàgg ki nga xamante ne mooy sama papa daal di tàkkaat beneen soxna indi ko ci biir kër gi muy ab ñaareel ndax sama yaay moom moo jiitu ci biir kër gi nekk fi waaye bi nga xamante ne ki nga xam ne mooy sama papa takk na beneen soxna indi ko ci biir kër gi soxna si nag bi mu ñëwee biir kër gi daanaka avant muy ñëw amoon nañ jàmm lool waaye nag bi nga xamante ne sama papa takk na ko ba mu ñëw kër gi dafa daal di ñëw daal di jaxase kër gépp nga xam ne mu doon lu yéeme lu ko neex lay def lu ko neex lay wax di jaxase sama yaay ak sama papa lépp loo xamante ne rek def na ko neex na sama papa lépp loo xamante ne rek coow na ak nit ci biir kër gi ku mën a coowal sama papa moom lay faral daanaka lu ko neex rek ci la nekk ba nga xamante ne loolu dem na ba jéggi dayoo jaxase na sama yaay ak sama papa ki nga xam ne nag mooy sama baay daal di wàcci ki nga xamante ne mooy sama yaay nga xam ne man may sama taawu baay waaye bi mu ko waccee nag man ma ànd ak ki nga xam ne man maay sama yaay ak samay rakk ak ki nga xamante ne mooy sama soxna ñoom ñëpp man maa leen yor ndax kii sama yaay sama baay yoratu ko man maa continuer nekk fi ma nekkoon di góor góorlu di taaba taaba waaye nag yor leen bi ma leen yoree ki nga xam ne nag mooy sama baay moom li mu garde léegi mooy ki nga xam ne moom mooy ñaareelam bi moom rek la yor daanaka comme bàyyi na sama yaay man li war ci ñoom yëpp man maa koy def waaye kii nga xam ne nag moom mooy sama soxna mook sama yaay bi nga xamante ne dëkk nañ ñoom ñaar daanaka dañoo dem ba dañoo daal di dëngoo nga xam ne am na jamono boo xamante ne sax xuloo nañ xuloo bu metti ba jàppante fa daal di xeex ki nga xam ne mooy sama soxna daal di dem ñibbi seen kër daal di fay toogi bi nga xamante ne nag toogi na fa man nag am naa ak moom ñaari doom waaye dafa ànd ak doom yi daal di dem mook sama yaay nag moom boobaak tey neexootuñu benn yoon sama yaay bëggatu koo teg bët daanaka lépp loo xamante ne rek dara neex na ma ci moom wala ma defal ko ko rek day met sama yaay ndax sama yaay bëggatul ma defal ko dara wala may jéem a wax ci moom lu jëm ci moom bi loolu amee nag ba nga xam ne sama soxna ñibbi na waaye bi mu demee ba nga xam ne jaadootul lépp man maa ngi moccu ngir bëgg sama soxna dellu si waat ci kër gi nekk ak ki nga xam ne mooy sama yaay ñoom ñaar ñu nekk ci jàmm waaye loolu nag dafa mel ne mënatul a nekk benn yoon sama ndax sama soxna daf ne ma sa yaay jii dey man mënatumaa dëkk ak moom benn yoon su fekkente ne mënoo maa indi ci dëkk bi nga xamante ne fi nga nekk dey na nga xam ne man kër gi fas yéeneetuma faa dellu benn yoon te it man bëgguma wacc sama soxna ndax am naa ak moom ay njaboot te bëgg naa ko te it saa yu ma waxtaanee ak sama yaay daan ne ko sama soxna day comme yéen ñaar neexoowu leen baye boo ma jéem koo indi fii ma nekk sama yaay du ci d'accord benn yoon ndax bëggul mu ñëw fi nga xamante ne fi laa nekk nee na ma doo ko fi indi tey doo ko fi indi suba du nekk foofu noonu benn yoon tey man bëgguma xëtt samay ndigali way jur ndax dama doon nit koo xamante ne ku ragal waxe way jur laa lool ndax damay bañ su fekkente ne dëgër naa bopp andi ko fii lu ci lu ma ci mën a fekk bu ëllëgee ñu ne waxoon nañ ko ko te sama yaay ak sama soxna moom fi mu ne noonoo nañ noonoo boo xamante ne ñoom ñaar mënatuñoo dëkk ba lépp loo xam ne sama yaay yéeg na ne defal naa ko sama soxna sax loola day doon loo xamante ne lu ko metti lay doon lool te man fii ma nekk di liggéey dama fi góorlu rek daanaka sama salaire demeewul noonu daanaka bu tollee ci cent mille francs ci lay yem te nag su fekkente ne man bëgg naa yor sama yaay te sama baay moom daanaka merow maak moom waaye maa ngi góor góorlu lépp loo xamante nit am naa ko maa ngi dimbali sama baay di ko yóbbante te sama yaay maa ngi koy jéem a yor ak sama rakk yi nga xamante ne daanaka amaguñ doole lool ma leen di jéem a yor su fekkente ne sama soxna ñëwul sama kër yaay nekk fële it mu bëgg koo yor daanaka day metti dootuma denc dara te daanaka li may yor sax mënuma cee yor sama bopp fii booleeg di leen ci yor moo tax su ma sañoon sama soxna daal di ñëw daal may jege su ma jegee sax dina am ci lu mu mën a jàpp ñu dund fii lépp loo xamante ne am naa ko ma ci mën a yóbban sama yaay waaye nag sama yaay nanguwul loolu benn yoon te sama soxna saa yu ñëwee fii ñeewante naa sama doom yu tuuti yi nga xamante ne ñoom lay bàyyi ginnaaw loolu daal man fim mu ne upp na sama bopp bi te yedd nag yërëm moo ko gën te wallaay man dey jaaxle naa lool. bëgg naa képp koo xamante ne man nga maa xelal dey ba xam man nan laay def ndaxte dey su ma nekkee fii. daanaka sama liggéey demeewul noonu boole guddeeg bëccëg lu ma am di yóbbante li may def sax daanaka du mat ma boole ko problème yi àdduna ak xalaat yu bari mën naa dem ba waral leneen te daanaka day bari sax lu muy yàq sama liggéey ndax damay toog sax ba mu yàgg dootuma xam lu may def wala dara lu may liggéey man daal sonn naa te su ma sañoon képp koo xamante ne dégg nga sama bataaxel bii nga wax ma yow lan mooy sa xalaat nga jox ma ko ma man koo jariñoo ndaxte day xel moom du doy benn yoon soo jàppee ne li ngay xalaat rek mooy doon lu baax yaa ngi nax sa bopp su fekkente ne nag li nga xam ne naqari na la génne nga ko partagé ko ak doomu aadama yi da nga du ci ñàkk nga am ci xel yoo xamante ne borom xel yu baax la suñ la digalee wala ñu conseillé rek su fekkente ne topp nga conseil yooyu incha allah dina la jari man nag maa ngi leen di ñaan ngeen conseil ma bu baax a baax. ndax lii de doon na loo xamante ne lu ëpp sama bopp bi la ndax bëgguma wacc sama soxna te it bëgguma sama merum jur di ma daal benn yoon kon nag maa ngi saaku ngeen dimbali ma bu baax ndax fii ma nekk taluma lekk taluma naan taluma sol yëre taluma sol daal lépp loo xamante ne am naa ko rek joxe naa ko te it sama rakk yeeg ñoom ñëpp dañoo ànd bàyyi ki nga xamante ne wan ginnaaw ki nga xamante ne mooy sama baay féete ak sama yaay ndaxte day nee nañ li mu def sama yaay daf leen a metti lool ndaxte day comme moom mooy jiitu ci kër gi mu dem ba takk keneen daal di dem bàyyi sama yaay fële wan ko ginnaaw defalatu ko dara lépp loo xamante ne ki mu fi indi neex def na ko rek neex na ko lépp loo xam ne wax na ko neex na ko moo tax ñoom tamit ñu mer ko problème yii yëpp daje sama bopp bi daal maa ngi saaku ngeen dimbali ma ci. kon nag mbokk yi yéen a ko déggandoo histoire bi mi ngi noonu koo xamante ne moo fi ñëw nettali ab histoire am képp koo xam ne am nga loo ko ci conseil rek nga daal doo ko ci conseil ndax tey day xel du doy benn yoon ñu leen di wax ngeen di wéy di abonné ci seen YouTube bi tey partager vidéo yi te di ko sem incha allah te képp koo xamante ne day am nga histoire boo xamante ne bëgg nga koo nettali nga indi ko fii daat koy joxe ci numéro bii nga xamante ne ñu ngi koy dugal soo ko fi joxee incha allah dinañ ko nettali King Taalif moo fi ñëwoon ngir jox ku tëx te na ndax tax mu fëx dox ba nëx ba ñépp dégg na ma